date bi président moo koy déterminer parce que décret mooy fixer date des élections yomboon na ma lool ma toog ne date bi nangam la te su boobaa ku mu neex ku mu naqari foofa ngay dem